ci burdu bi ci jàkka ji yàlla yàlla fay leen di nuyu sëñ Babacar mi toog sama wet ak mbay mi nga xam ne itam mooy toppatoo jàkka ji di nuyu magu jàkka ji yépp di nuyu góor jigéen mag ndaw yàlla am seen fay yàlla yàlla fay leen waaye kii ñuy màggal bisam jar na ko nag mooy seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon naa ne am nañ saas bu rëy bu nu yàlla defal donte leen nee na moom suñu borom subhaanahu wa taala xéewal yi ma leen defal su ngeen ko doon limit mën leen koo lim wa in ta'udu nihmatallahi la tuhaha waaye du teyit ñu sant ko moom suñu boroom ci sunu dayoog xam-xam sunu dayoog yëg yàlla na nu nangul sunu cant waaye am nañu xéewal gu rëy li ma ko waxee mooy ñu judd rek bokk ci xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu gëm ko loolu xéewal gu rëy la te xam ngeen ne moom mi ngi juddoo makka am ñeen fukki at ñu soog a wax ak moom mu sonn lool lool ci ay mbokkam ndax bëggul kenn ëllëg nga dem safara moo tax suñu borom ne ko nag commencé waaraate ci ñi la gën a jege wanzir asiratukal aqrabi aqrabi commencé ni ko wolof di waxe mbay ci sawe u tànk ca la commencé nag di woote nekk makka fukki at ak ñett di woo ay mbokkam wa jima asrata haaman fi xuraysi sawa munaadiyan xawmahu wal xawma fi lxaram sallallahu alayhi wa sallam kon toog na makka biñ amee ñeent fukki at di commencé woote ba def fa fukki at ak ñett sonn lool jóge na fa dem ci ay mbokki yaayam ñooña toroxal ko boole ko ki xaj ak i xale sànni ko dàq ko ba mu génn ba xaañ ko ba jibril ñëw fekk si ko ne ko loo bëgg ci ñaari montagne yii ñu maasale leen ndeysaan ci yërmandeem mu ne allahuma ihdi qawmi fa innahum laa yaalamuun yàlla bàyyi ma rek sama xeet wi dañoo xamagul waaye jombul ca kanam dana am ñu ma gëm sax te gisuñu ma mooy xeetu Seydina Muhammad nu nekk ci ay xeet woowu alhamdulillah ñu sant yàlla mu jóge waat fa xaaj ay saabaam ne leen léeg coono bi metti na dem leen abas buur bu baax nga fa ñu koy waxe najaas yi ca la ñu dem délégation ba jaafar moo ko jiite woon xaala najaas yu nu mu ko waxee islil arde xat balagu antum suyoomun wa tayru sarri lam yasumi mu lakk leen moom buur boobu te buur boobu mujj na tuub abbas najaas yi mujj na tuub te gisul sayyiduna muhammad kiimaan bi ci am mooy ba mu faatoo mi ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam madina mu saaba yi jóg leen jullee najaas yi ci la borom xam-xam yi di laajte nak ndax imam bi wala ustaas bi man na julle néew bu fi nekkut néew bu timut yonenti bi nak yàlla defal nako ko lool waaye dañ la loolu khususiyal ak jaglel la ndax la tax boba téléphone amul portable amul mu tok rek ci madina ne na jaal si faatu na ñu julle ko ka ka ko wax man nako andil bam gis ko ndax xam-xam bu léegi bi technologie bi léegi génnee nako da nga yor sa portable wala nga yor sa téléphone wala nga yor sa télévision ñu indi la image boo xam ne ma nga ca Amérique wala ma nga ca France wala ma nga ca Màkka ñu tegal la ko ba mu jege la nga di ko gis kon Seydina Muhammad sallallahu alayhi yàlla mën na ko indi ko ci kanamu di ko gis doon na ko li ma la wax amal sa portable wala sa télévision xibaar yay xew bitim réew ñu tegal la ko ngay jàkkaarloo moom kon yàlla mën na ko. kon bu ko tubaab yi ma mënee ci xam-xam yàlla mën na du ko ëpp kon ñu ne Seydina Muhammad toog na cee Madina di gis di gis najaas yi te tuub na te gisu sax Seydina Muhammad kon yàlla jagleel na ko lool mu jóge fa ñu sonal ko lool lool ba fexeel ko ba ne dañ koy rey fukki waxambaane ak ñaar wala lu ko ëpp ñu tëru ko bëgg ko rey yàlla na ko génnal dëkk bi nag jóge jot na demal ma madinatul munawwara ca la gàddaaya nag ànd ak ñi ko gëm ñëpp wut si madina waaye gis ngeen ne leen waa madina doon teeroo ne ñoom doon teeroo defe naa ne bokkut ak ne ko najaayam doon teeroo di ko sànni xeer bokkut ak itam ni ko ay mbokkam def waa Makka waaye teewul ba mu fa amee ay at rek la defaat nak wa yalla nak ne il faut nga wat makka la bal ko xerem ya fa ne laata hubal ak manaata yépp nañ dem nak delul makka ñu tudd ko fatul makka mu la bal kaaba ga kérok ba dugg makka di wat and ak mbolo ya dafa organiser mbedd mu nek ay soldat jàpp jóge fa ñu wara dajé ci kaaba دك بديرير مكة ديرير وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زاقا دك بديرير يب دو داجي نك تشكابا غلاقتو كل سيني بد دفن يونت بي لنج دون دف تاي دن لين راي واي خوم لين لوم لين واخ ما ساتسنون اني فاهل لكم لان يا كان تاي موم لا لين دف يب تالا سيني بد xulliku naan ko aqun karimun ibnu karim waaye gis nga ishabu wa antum tulaqa dem leen bàyyal nañ leen boyal nañ leen kon nag mbokk yi war nañ cee jànge itam ku la tooñ na ko jéggal ku la tooñ na nga ko baal sayyidina muhammad moom la ne war a roy te ñi ko tooñal ñëpp tudd sax lañ ko fa doon def dafa na rek dem leen baal nañ leen ca la laabale kaaba ga xéeram ya dañ fa set bis ne tey benn xéeram nekkutu fa ñépp di fa jaam di jaal jaamu benn yàlla laabal kaaba ga ak xéeram ya fa nekkoon ak laataak xuubal ak manaataak yépp set wecc yàlla dong di fa jub sallallahu alayhi wa sallam léegi waa Màkka waa Madina ñëwoon nag doon nañ tiit naan xam naa ne tey jii ñàkk nañ ko ndax xam naa ne comme ñëw na ci dëkk bi mu gën a bëgg ñun waa Madina ñàkk nañ ko mu dégg annoncement ba ne leen nag maay yéen la sama dund yéen la sama dee yéen la moo tax mu tëdd fee ci Madinatul Munawwar sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi ñu ngi leen di ndokkee ci guddi gi di ñaan yalla yalla na yàlla nangul ñu ñu teewe ko ay ati at ku fi ñëw yal na yàlla faj sa aajo ñu ngi gërëm Abdou Sarr ak ñi mbokk liggéey beeg waykat yeeg ñëpp rek ñu ngi leen di gërëm ñi participer andi ak andi seen wërsëg yal na yàlla remplacer ko fay leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. top bu ko defee rek dañuy wéyal liggéey bi jox seen babagar mu daal di incha allah rabbi bu noppee ñu jox xaaj abdallah moom it incha allah rabbi ndax tey guddi gi dafa yaatu ndax boroom guddi gi moo toll noonu muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tax na tey daal moom tabarakallahu yal na yàlla nangu lépp rek sëñ Babacar bisimilah بكم فعلا ولا كتابات بمدي لك ما ازا يقول ما دي وما ازا ان تجمع الكتاب من معناك والله لو انا البعال مداد والوصبا لا جعلنا لذاك وإذا سكت ففيك سكت كل من مظلم وإذا نزلت فبعد علياك مصطفى يا أكرم الصخرين يا كنز جد لي بجودك أرضي برداك فلا أنت أكرم ومشفع ومن اتجى بإماك النار واواك صلى عليك الله يا علم الهدى ما أن مستاق إلا مصواك صلى عليك الله يا علم الهدى ما أن مستاق إلى مصياك النار المنى إذا Nasrallah. كما لمن وسر على wasalaam وجزيا ابدا اي انا مهم محمدنا المختار في الغنى

ها آخر ما إليه هاب من حبه ولم يولد كل وصف حميد يجزي بسيئات يأفو ويزفع ساء عن مسيب من كل وصف حميد خير تسكري لما ويا إله واه وجزيا أبدا أي أنا محمدنا إذا أجمل مدننا حيث كما يقصد وسليا يا إله واو وجزيا واو مدقلي أنا محمد مدنا كاملا واستر هدايا يا ربي يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألطف الدوايا جل جلاله وليس برك مخصوصا بمرحزونة حالاته زمتي جنان القصر

الخبر جل جلاله إني آتيتك بالأدلاس ملتبسا ولا يدنس بار الأفو أقدار يا أكرم الكرم يا أرحم الرحم يا ألطف الندب يا بر جل جل

Nobody. I'm going to go to the hospital. من بيكة يا جابر جاء بالأمم يا رسول الله والآل وصحبي أقمار الأوفات ومن سبيلهم سالكوا من أبدا പറഞ്ഞാൽ